mukarraman bi qirat tahaati wa sada ngeen jëf ci déglu bi ñuy déglu ak seetaan bi ni seetaan ci sunu site bi ñuy wax sunu actu point com ñuy ànd ak yéen ci naafilay weeru koor wi ñu di ko jëlee ci téereb sëriñ son yi bu Mbàkke bi ñuy wax xoratul xëy ni tey ñu nekk ci guddi fukkeel bi ak ñaar guddi fukkeel bi ak ñaar fukki rakka lañu ciy julli rakka bu nekk nañ ci jàng faatiya ak xul wallahu juróom benn yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddik fukkeel bi ak ñaar fukki rakka lañu ciy julli rakka bu nekk nañ ci jàng faatiha ak xul huwallaahu juróom benn yoon mbokk yi yal na yàlla faj seeni aajo te faj suñuy aajo ñu leen di sant baax di leen gërëm di leen jox ci yeneen i guddi yaa ayyuha alladina aamanu kutiba alaykum asiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayyaaman maadudaat yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat tahaati wa sadadi